Mangi, mangi, am maa ngi mark bi di Queenam di defar ay sac ak ay dal ñun luñ ci jublu moy euh, gëna dolel artisanat sénégalais liñu mom euh, fi ci si biir si biir Sénégal pour que sénégalais momal ko sen bop mais aussi pour que bitim rew aussi euh, gisi sen bop mën ko jënd et tay panel yi ñu ñu ñu jotta def fi ni ñu ngi koy rafetlu bu baaxa baax parce que dès mom c'est une structure bo xamanteni depuis le début ñu ngi accompagner ñu accompagner entrepreneurs secteur mais surtout aussi si artisans parce que man si artisanat donc si loolu donc euh, nañ ma financement aussi formation nañ aussi euh, par exemple xool li fa am lu baax indi ko Sénégal pour gën ko euh, innover topp aussi tendance yi nga xamanteni mo xew pour que ñu mëna exporter suñu ay produits mu mëna nek euh, compétitif sur le marché. ku xamone vulgarisateur demb dëmb nu mu doon liggéey nekkoon informel liggéey bi metti lool waaye itam mu am ay jumtuwaay yoo xam ne ñëpp xam nañu ne ñii seen métier nu ñu ko mënee ak niñ ci taxaw mun nañu am leneen loolu tey der taxaw tem ne le monde artisanal surtout vulgarisateurs yi bokk ci tey ñi nga xamante ne dañ leen taxaw parce que bu ñu demee ba vulgarisateur ñu ne ah liggéey bi ngeen doon liggéey métti na trop te pourtant ay jamaar ngeen léegi ñun DER nañ leen dimbali ci formation ci formalisation mais aussi jox leen ay jumtuwaay yoo xam ne tey maanaam ku ñëw seen place. dafay jàpp sax ne xëy na bitim réew la nekk ndax matériel yi nga xamante ne moom ngay fekk ci réewum tubaab yi DER taxaw na ne dina ko jox vulcanisateur yi ba ñu fiy teew xam nañu ne vulcanisateur yu bëri seen xar kanamu place commencé naa soppeeku ndax DER ne du ñu yem rek ci jox leen matériel mais balaa ñu leen di jox matériel yi. dañuy aménager seen place defaraat ko bu dootul nekk rek pokkuus bi nga xamante ne moom la ñu doon fekk vulcanisateur yi dëmb mu toog rek di xaar client ñëw ndax xam-xamam bu mu yor mu ne ah xam-xam nag dafa am lu muy méngool lu mul méngool mooy dinañu fexe ba yokk seen xam-xam mais defar seen place yi ba mu rafet ba ku ñëw bëgg koo jaawale ak atelier yi nga xamante ne ñoo nekk ci réewu tubaab yi yokkute am na ndax matériel bi nga doon liggéey bokkut ak li ñu lay jox mais itam am nga beneen xam-xam boo xam ne aussi dañ lay yóbbu pour nga jël xam-xam boobu indiwaat ko Sénégal. donc côté boobu vraiment le monde artisanal précisément les vulcanisateurs du Sénégal sawar nañ ci deer lool ñu leen ci sant ci côté boobu.